muy fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu am na ñuy bind ci jaar-jaar yi lislaam ne ci la ñu wëlbati woon euh, jullit yi yonent bi jiitu ci sallallahu alayhi ñuy jublu léegi bu ñuy julli makka. dafa jur coow lu rëy mooy folli gi njëkk xew ci lislaam nga xam ne yonent bi waxoon naa la ko. sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee madinatul munawara dafa faa fekk ay yahud banu quraysata banu nadir mu ne nag moom daal xeme moon na bokk ak yahud yi xibla ndax nit ki lim nekk li nga nekk mënoo ko ci xëcc lu dul da nga koo fekk ci lim ne ci nga koy mën a jaaree ba xëcc ko ci li nga ne yàlla nag ne ñii mérito wuñ teraanga teral nga leen fekk si leen ci liñ ne waaye du tax ñu fekk si la ci li nga ne ba yowmal qiyaam du sotti yonent bi xam loola nag mbir ma métti ko boole ko ña ngi koy xas ne ah mi ngi nii contre suñ diine ji te bokk ak ñun xibla danañu fekk si mushrikuuna yi tamit di ko sànni baat ne mi ngi nii ni ki diine yonentu yàlla ibrahima lañ ko yónni mu wuteeg ibrahima xibla nu mën a nekkee yii tànqal yonent bi jibril ñëw rek mu ne ko ñaanal ma sa borom ah mu ñëw rek mu ne ko ah jibril ñaanal ma sa borom man daal ñii ay baadoro lañ kenn mënta bokk ak ñoom dabal teranga mu ne ko ah, du ma ñaan dara yàlla yaa ma ko gën a jege booy ñaan yonent bi dugg rek commencé eh, ñaan bam mu ñaanee ba pare rek jël bëtam yu tedd yu sell ya di ko xool ci asamaan xam ne léegi tey yàlla andil ko message mu jaar ci jibril yàggul dara rek jibril ñëw ne ko qad nara taqalluba wajhika fi samaa'i falan nuwalliyannaka qiblatan tardaaha léegi sax fa walli wajhaka satral masjidil haram du yow rek de wa haythuma kuntum fa wallu wujuhakum satrahu sahaba yëpp dugg ci ak maanaam xeet wi bu amee dana jaaxal nit ñi ndax ñi nga xam ne seeni xel sottiwut na mu war a sottee danañu tàmbalee laaj waaw ñii lu tax ñu doon jëm nii ba yàgg ñuy jëm nii. waaw jullit ñii barki démb ñu ngi nii di julli jublu baytul muqaddas tey bàyyi nañ ko di jublu kaabatal musarafa lu ko waral wax ju nekk nag buñ la ko waxee dafa war a am tontu wax bu amul tontu rek yàqu yonentu bi yàlla nekkoon ko nag tontu leen tontu la lu ne leen. ki ñu jubale kaabatal musarafa moo moom moo moom penku lépp ki ñu jubale ci kaabatal musarafa moo moom soxuwaay lépp kon fu ko ci neex rek bu nañ jublu leen fa ñu jublu fa su boba nak yow yonent bi nee leen yàlla moo moom fépp te fa mu joxañ rek fa la ab jaam war a jëm سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي ما يشاء الى صراط مستقيم